saraax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa dogal ya CNG yëkkati teg ko ca kaw arbitre yaag na ko waa axlu lamb gisee bu dee Gris Bordeaux le troisième tigre de Fass la mu xamle mooy sanction yi CNG tegu ko fenn kuy wër dictateur ba egsi ci Aline Sarr koy jàpp président CNG Aline Sarr mooy dictateur bu mag bi lamb ji daa bëgg a nekk buur ak bu mi lu ko neex mu def lii mu def nii c'est de la vraie dictature loolee la Gris Bordeaux xamle lamb ji moom bu demee bëgg ko neex def lu ko neex a jële ci bopp CNG bi dissoudre le CNG ou faire partir Aline Sarr nañ li mu def ci arbitre yi erreur monumentale la décision bii ñu jël xam nañ ne du décision bu baax ci làmbu Sénégal làmb ji li muy sooxe rek dafa doy waaye buñ ci doolee li day gën a dee moom le président des lutteurs en activité Gris Bordeaux la mu bëgg mooy Alioune na fi génn ba jeex tàkk yenn acteuru làmb yi ñoom décision CNG boobee neneen la ko gisee bu dee du jànjee ko président des amateurs la mu xamle mooy c'est une lourde sanction CNG bi ñu ngeen def waru ko woon def bokk naa ci ñi ñaan ngir ñu suspendre seenub grève Sitor Ndour dafa waroon a déposer préavis de waaye nag mbir moomee yépp warutoon a tax CNG jël yi la décision bu dee Boy Kayré may ancien président des lutteurs en activité la mu xamle mooy ñoom la engagé gannaaw ñoo toppoon ci ginnaaw CNG di leen raggal seeni ginnaaw bu CNG amee ay milliards ak i ci seeni koppar arbitre yee ko waral ñoom ñoo doon war di dagg mbër sénateur ak déception la ñu ci mbir mi ñi ëpp la jàpp mooy CNG warutoon a jël yile décision bu dee ñoom arbitre yi ñoom tey ci àllarba ji lañ fas yéenee ba xam ban décision la jël ci mbir mi le gannaaw sanctionné nañ leen danañ waxtaan pencoo xool ñoom it décision la jël diggante franc ak rëg-rëg la franc xamle mooy sama staff décision buñ jël ànd naa ca buñ gisee ne sama diggante rëg-rëg ba ko sunu làmb laajee li ni entraîneur ba di soosé wax na ca la mu xamle mooy Gamou Gueye mooy favori ci combat bi soq na def très attention ndax Gamou Gueye moo ko gën a technique moom Gamou dafa technique dafa mën a xeex soq bu bañee lu ko bett ci combat bi na def très attention waaye man soosé sama favori mooy Gamou Gueye 2 ba amateur yi soxla woon diggante Ada ak Tafa Mbër Fallou Ndiaye taxawal na li ni gannaaw bu mu jógee ci Aline Sey Junior moom Tafa Mbër Ada jóge ci juillet bu nu jàllee ci lit simple ak ca neuvième édition gala bu association Lingir bu Diofior foofee Ibou Ndiaye Obali moo jël ndam la ñu nga fa tegoon million francs Ibrahima Ndiaye Obali bu Diofior moo finalu ak El Hadj Sidi Ndiaye bu Zowal daa di ci kanam yóbbu ndam la ci poids lourd fukki mbër ak juróom-ñett ñoo fa nekkoon bu dee ca poids léger foofee mbër maanaam ñeent fukki mbër ñoo fa bindu woon Abdou Diouf bu Jilaas moo daan seeni sembeen Thiam ak Ibou Ndiaye ñoo yóbbu final ya bu nu jàllee ci la xalif général des promoteurs de la lutte sans Franc ak Bébé Saloum dagg nañ leen lu toll ci 140 000 francs la mu dagg ca bés ba ko xaymaa toll na ci 412 500 francs fa ñuy jeexale mooy ci recours yi ñu déposé woon ca CNG ci combat yi fi jotoon a jaar combat ba doon dox ci diggante Jatle ak Jamceeri le dimanche 23 février ci arène nationale te Jamceeri daanoon Jatli recours ba génn na CNG confirme ci delloo na victoire ba fils de Zallo combat ba doon dox diggante Seex Naa bu Songaan Géey ak Maama bu Boy Sëy recours ba génn na CNG jox na Seex Naa Maama Lamine ma daanoon seex naa nangu nañ victoire ba jox ko seex naa jërë ngeen jëf mbokk yi li ma nekkoon li gën a fës jox dig daje ba ëllëg incha